école boobu format bi ñu changé tur bi. waaw waaw waaw. moy li nek ak li nak c'est-à-dire tu viens tu fais du plagiat tu enlèves un mot tu tëngam sangam. il est entré c'est-à-dire. wallahi c'est pas le Mustafa Guirassy que j'ai connu moi. à l'IAM. Mhm. donc mom Djibi jaxate c'est des noms professeur Djibi jaxate mhm. ñu toog. ñu tok di waxtaan. un homme boo xam dafa gëm ay valeur gëm nangam. Mm. mais pour des questions de strapontin et de prébende. il se rabaisse loolu mooy dëgg gouvernement day suul ndaanaan. Mm-hmm. parce que ça c'est pas Moustapha. non non Ousmane du suul ndaanaan. Ousmane su ñoom ay alliés lañu ñu leen toroxal. quotidiennement gouvernement bu Ousmane te suul ndaanaan bi dafa feeñ ci ñaari nit ñoo xamante ne ay ndaanaan lañu mu neex ñu mu naqari ñu ay ndaanaan lañu. Abdourahmane ndaanaan la moom mii ndaanaan la. dëgg la. mais mais c'est dangereux. c'est-à-dire fi c'est pas ah. toi tu ne peux pas insulter le gars hier en pleine conférence de presse pour dire que celui-là ne dit jamais la vérité. Mm-hmm. Tu tu talis avec celui qui ne dit jamais la vérité. pour gérer mais attends service après après vente. pour mm. gérer le service après vente c'est-à-dire li nit ñi xamee le nit ñi xamee woon Abdourahmane Diouf moom lañ ko gis keroog mu pas toog ci télé télé ñu hmm. il donne de fausses informations par rapport à l'université hmm. c'est grave ce qui se passe dans ce pays c'est-à-dire des hommes de valeur yoo xamante le gouvernement bi daf leen dévaloriser des hommes que moi personnellement que j'ai toujours respecté mm-hmm. de grands intellectuels sénégalais ils jox leen cër jox ils valeur parce qu'ils sont en train de défendre l'indéfendable parce qu'ils appartiennent à un gouvernement dirigé par une personne qui se nomme OS Oscar Sierra maintenant est-ce que ces gens-là quand ils étaient à l'opposition ils défendaient des valeurs et des principes mm-hmm. bonne question parce que soo doon défendre ay valeurs ay principes am na ci yoo xamante ne doo pas koy jaral nga bàyyi fa lépp dem parce que c'est des gens qui ne c' est grands intellectuels de grands cadres qui ne sauveront jamais mm-hmm. qui peuvent percevoir plus que ce qu'ils gagnent ici et travailler pour le pays plus que ce qu'ils font ici mm-hmm. su leen jaralee nag xaaral noppi sax quoi su leen jaralee ñu ñu ñu sineeku baax na baax na baax na baax na bay wàcc non, baax na baax c'est parce que nguur jaru ko. waaw jaru ko nguur jarul lii. yokk ndox Moustapha nguur jarul lii. yokk ndox. am sa ndox na ko day yem si ndox. yokk ndox. Eh, am. non. c'est vrai. waaye eh, fu ñu doon ndox yi. parce que ay ndaanaan ñuy suul. dama mmh. ruus man mmh. l'opération de suul ndaanaan. anta ne ba loolu tamit. nee nañu doole na. non parce que xam nga non dañu nekk di suul ndaanaan yi tëj entreprise. parce que ku mel ni ñoom Xaadim Ba. un directeur bu investir lu bari ci dëkk. def ay sociétés yu bari yu mag. gis nga benn jour boo ko teg ci biir bërëb rek. xañ nga ñaata personne ay transaction signature facture nangam nangam. xaw ma ban forme la ñu war a seetaat. ci ci ci ci boo ñuy def yooyu. mais ñooñu ñooñu ponkal yooyu ñu jëli. ma jambal jaañ tey mu war a voyager ak ay partenaires. mu dem war à l'extérieur war ak ay partenaires nekk dans li nga yàqal nangam na ñaata nga li nga ko yàqal li nga yàqal li nga yàqal léegi nga jël directrice directeur Coris banque mm-hmm. mais les banques fonctionnent mm-hmm. bon problème là boo xam ne ñun yëguñu ko mais banque yi mu ngi fonctionner mm-hmm. te te loolu li ma ci yéem mooy ay ay ay ay nit ñooy génn alerté Clédor Sène ba bi mu alerté ñi mu tudd ba léegi sax yooyu ñu jëli la

tudd ci Coris tudd ci keneen tudd ci ñëpp ak ñëpp mais boobu ba léegi c'est-à-dire ñoom dañu nekk ci ay commande ñoom ñuy génn naan ñu diw suba diw lii état bi di ko exécuté ñuy wax loolu ñoom lan lañ investir ci réew mi. Mm. Clédor Sène Asfad ah, xaw ma bi ñu entreprise société euh, hôpital bu ñu tabax fii la ñuy fajee ñi ñi jël hélicoptère dem yóbbu leen te docteur bi nekk cancérologue tontu ko. si vous vous souvenez l'hôpital na wax a tabax a ko. Mm-hmm. faire. Oh, mm-hmm. mais mais une flagrance mensonge. Mm-hmm. un état. ñu état, la du accuser Pape Cheikh Diallo Cheikh Diallo témoignage si directeur Banque. ok Clé D'or? Ah, mais lan la investir mais bo bo boo saa yu xëyee ci kaw ay chef d'entreprise des hommes d'affaires, affaires je bëggul bu leen tuddee suba ñu jëli leen. ndax il est commissaire politique police je dëkk bi wala dafa am leneen ak leneen mais ces chefs d'entreprise entreprise moi je parle xawma ma je moet mais li ma xam ci ñom moy dañ créer emploi au moins au moins bo jëlee chef d'entreprise. Je leen. di leen traîner. yaa je ay mm. oh, mm. entreprise mm. benn jour bu ñu def foofu war a signé ay entreprise war a signé ay trans yaa ngi koy yaa ngi yaa ngi bloqué. Guirassy mm. moom peut-être que il n'est plus notre ministre de l'éducation nationale. non je pense aussi. c'est parce que moment bi muy wax loolu. Mm-hmm. nekkatul notre ministre de l'éducation nationale. tout à fait tout à fait. parce que tamit non parce que la fille là xam nga sortie bi mu defoon ci église bi sax kooku mën nga ko ko pardonner. Mm-hmm. mooy bi mu génnee di défendre.